waaw TFM jërëjëf TFC du Sénégal ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média ñu nuyooti leen fi leen daan nuyoo fii ci euh, jotaay bi quartier général la ñu ko tuddee guddi gu jot 22h euh, jëm xëdd en direct ci télévision Futur Média ñu ngi leen di ndokkeel euh, ginnaaw bi ñu wooree tey xam naa ni sama sama jaam yi ñoom ñoom booy ba parce que noonu laa koy tuddee ñoom tey dañoo feebar parce que dañoo ragal koor sant yàlla ba am nañu sëriñ ñu mel ni man pour di leen woon yoon wi de toute façon ñu ngi leen di euh, gërëm bu baax ci seen fidélité ak ni ngeen taamoo euh, programme yu télévision Futur Média ni bis bu jot dañuy njëkkee ak pàcc bi ñu tuddee téléservice téléservice bi nag dañuy njëkkee ak xibaaru jaww ji di météo euh, météo wu ëllëg nara yam ak 23 juin Zeyna lañ ci àndal. TFM jërëjëf seetu Sénégal TFM. mbokk téléspectateurs yi nuyu nañ leen di leen dalal ak jàmm ci xibaaru jaww ji euh, suba nag le jeudi 23 juin 2016 ci Ndakaaru ci suba si dinañ am 24 degré Saint-Louis daal di am 25 degré Podor 26 degré Matam 29 degré Tambacounda 25 degré Diourbel 25 degré Kaolack 26 degré Kédougou 23 degré Kolda 24 degré Ziguinchor 24 degré Linguère 26 degré. ci ngoon gi Dakar dina am 28 degré Saint-Louis daal di am 33 degré Podor 42 Matam 44 Tambacounda 41 degré Diourbel 42 degré Kaolack naka noonu 42 degré Kédougou dina am 38 degré Kolda itam 38 degré Ziguinchor 39 degré Linguère 42 degré. géej gi dina yéega suba ci suba bu fukki waxtu tegalee ñeent fukki simili ak juróom dina yéegaat ci guddi gi bu fukki waxtu ak benn tegalee juróomi simili. géej gi dina fer ci guddi gi bu ñeenti waxtu toftalee ñaar fukki simili ak juróom dana feraat suba si ngoon bu juróomi waxtu jotee waxtu yi gën ngir dem nappee ngi toll diggante ñetti waxtu bu tegal ñaar fukki simili ak ñeent jàpp juróomi waxtu bu tegal ñaar fukki simili ak ñeent loolu ci guddi gi lay doon ba ca topp dana tàmbale euh, suba ci bëccëg gi bu ñetti waxtu euh, toftalee ñeent fukki simili ak juróom-ñeent jàpp juróomi waxtu bu tegal ñeent fukki simili ak juróom suba jant bi dina fenk bu juróom benni waxtu toftalee ñeent fukki simili ak ak ñaar dana sow ci guddi gi bu juróom-ñaari waxtu toftalee ñeent fukki simili ak ñaar Pape Cheikh lii mooy xibaaru jaww ji bu ëllëg jeudi 23 juin 2016. merci ma puce kay toog sama wet ni bis bu jot loolee xibaaru jaww ji la woon ñu ciy gërëm bu baax waa service national météo Bamar Diagne ci jàppandalam ak euh, équipe bu météo bu euh, Sénégal li ci topp euh, xam ngeen ko taux de change bi la dañ leen koy jox nu mu gënee gaaw laataa julli ak naafila yu ëllëg yi bu dee taux de change bi 1 dollar ci waxtu wi mu ngi toll ci 580 virgule 094 francs CFA 1 euro mu ngi toll ci 655 virgule 950 57 francs CFA une livre sterling mu ngi toll ci 850 fa 882 francs CFA un yuan chinois mu ngi toll euh, ci 88 virgule 1984 ku juddu at moomu ci plateau bi ah oui que des que des que euh, am amul 84 euh, gin avant 84 ay ay avant 84 fi nekk ñu jox leen waxtu julli yi ngeen mën cee bàyyi xel itam bu dee suba teel dina tombeek ñu jeexal xëdd julli suba mu ngi toll ci 5h23 Tisbaar julleem mu ngi toll ci 13h13. Euh, takkusaan mu ngi toll ci 16h38 euh, timis mu ngi toll ci 19h42 gue mu ngi toll euh, ci 20h58 naafila yee ci topp waaye ki toogee ci palaasu oustaz tey di Cheikh Ndiaye mu sumbulu sañu ma koo wax mu wax ma naafila yi moom tâche bi ci jëbi sax ñu bëri dañ ma ne julli julli gu bëri la taasu julli la mais man loor leer na ma ni taasu dóor la moo ko ci def saa yu génn ci tele bi day jël ñuulal def ci man moom leer na ma man tatouage la man man loolu leer na de naissance. <laughs> Ah, lii tatouage la de. du tatouage. Pape Cheikh mun na nekk tâche de naissance ah. naissance euh, defe naa ne boo ma xoolee ay cinq ans ci ginnaaw. ou six ans nekku ci woon. parce que li d'habitude jullikat yi rek la ñuy gis ñu am ñuul ñuul bi. Oh, waaw mën nañu wax loolu. ci la commencé julli julli bi tax li am. kon lii julli moo la ko jox. effectivement waaw. lii tatouage la ma gën a nuróol de. non du tatouage bu dee tatouage góom lay nekk. tatouage du góom kat de. kay bu tatouage al alfi xam nga tatouage. yow tatouage astafurla tatouage xam nga ko. na bali. baax na. tatouage kay. c'est vrai que am na yoo xamante ni boo ko dee commentaire sa gémmiñ mën naa féete fi lu leer na nga wax lu leer. Pape maandu leer. bon hashtag bi taasu taasu Cheikh Ndiaye bi tatouage ou taasu julli. di ñuulal u ñuulal yow man aw ma parce que tatoué wu ma. ba non ce n'est pas donné à tout le monde ah yàlla mooy choisir ku muy jox leel ak lii. ça c'est du grand n'importe quoi kon da ngaa leel. waaw moo tax ngay watu foofu damay dellu rek waaw. d'accord wala Pape am na ñuy am na ñuy jullee ci kekk. am nañu dulloo jillee ci tapis bu nooy ñun ci nooy la ñuy. moom laa lay wax saa yow dafa mel ci kekk nga koy dóor de booy jullee ci kekk. waaw góom lay nekk góom. lii góom yow il faut ma xool lii laal ko voilà ñëwal lii dafa dafa am na góom de xaw na dëgër bu dëgëree rek ci kekk bi lay teg. kekk la wala. <laughs> yow lii di góom bu wér. putantaan xam ngeen. putantaan cicatrice la en fait. putantaan bu wér waaw fay def tâche day def tâche voilà donc Alfi mbëkk ma fii te bu ma blessé comme ça man tamit je serai comme lui de toute façon euh, ki leen di atte bu ca kanamee parce qu'on nous dit souvent que jullikat dëgg euh, yu ci ëpp euh, à force ñuy julli dañuy am tâche fii ça on l'a vu fii ci Sénégal mais ki ñuy atte ali Alioune Sall la bu ca kanamee dina ñëw ci plateau bi comme ça mu atte ñu est-ce que est-ce que ce que est-ce que mën ngaa julli ba am mandarga mandarga boobu dafay firnde dara ou pas on comprendra de toute nee na mandarga julli la man nee naa cicatrice la putantaan bu wér la. Euh, dites-nous sur internet exactement moom li mu nekkee euh, li mu li mu amee fii euh, lan la on profite ci partie bi pour won leen la yu ëllëg yi koor gaa ngi bëgg jeex munuma cee sori waaye comme téléservice la ñu wax il faut que ñu joxe ko ah. laata oustaz Alioune Sall di ñu rejoindre ci plateau bi donc naafila suba yi suba dina tombé ak 17e. saa <laughs> imaamu kër gi mooy xool de. xool lu naa ko joxe quand même donc dix la euh, voilà mu ngoog comme ni ñu leen ko bindee mën ngeen ko liral seen bopp sax <laughs> voilà que bëgguma ci sori. waa léegi ñun suñu genre ñu mënul pour ne pas faire des fois voilà benn yoon benn fatiha. c'est pour ne pas c'est pour ne pas faire pour ne pas faire mais ex-aidex sànq rek maa ngi la koy wax fañe da ngaa leer nañu ndax jàpp bu bëri euh, dañ lay bàyyi nga liiral téléspectateurs yi naafila yu suba suba yi fukki rakka la. at euh, nga def ci euh, soit cinq salaam wala dans chaque rakka dukki sëlma euh, juróomi sëlmal fukki rakka juróomi sëlmal léegi rakk bu nekk mhm. ah waa at benn benn fatiha eh waaw ñaari inna anzalnaahu fii lu toxadir et deux fois xul yaa ayuhal xul huwa allahu ahad xul huwa allahu ahad waaw loolu la allahu samadu lam yalid walam yuulat walam yakul lahu kufuwan ahad macha allah waaw hul waxal huwa moom allah yàlla macha allah ahad ndey jurul kenn kenn juru ko ma doolem wala capitaine Ba baax na. c'est-à-dire da nga naan Exidex. dama doon testé. Bessel ni tontu ci place Exidex. Alfi tontu ci place Exidex. DJ Bouba tontu ci place place Exidex. mais Bessel moom waxuñu ñu ay atam. man ba tey waxaguma. c'est vrai que loolu. war nañ ko lijjanti war nañ ko lijjanti. <laughs> man macha allah maa ngi dem ci maa ngi am sama 80 80 laa am. macha allah waaw ah, macha allah mais amoon nga ancienne vie aussi xam naa. Euh, waaw mun na nekk ah parce que suñu borom moom kéemtaaneem dafa bari. kon lépp mën na nekk. parce que mënul déggandoo lakk yëpp loolu daf ñu jaaxal ñun ça c'est impossible. <laughs> alors pour le moment nii li ñuy def mooy before QG commencé guñu émission bi euh, Ndiaye dafa war a répété parce que ca kanam euh, dafa bëgg ma yóbbu ko fi ma ko jëlee ci ëttub Seydina Limaamu fa laa la jëlee sànq de. salaamaaleykum adduna bi yëpp salaamaaleykum Sénégal. Euh, Pape Cheikh di am mbégte contentement bu mag euh, toog fii encore ci général euh, da nga yóbbu tamit fa am solo. Mm-hmm. mooy fii ma dëkk dëkk Seydina Limaamu. Mm-hmm. moom mi ne woon randal géej géej gi randu. Mm-hmm. xam nga lu ma leen di nuyoo wa ah? dama naan ginoojin jàmmalaay yonnen samay gayaatu na bay lay boo ana buuba nduur na yëngu waay tedd nga yoon ba lay ginoojin lay yónneen samay gaayaatu na bay borom jamanaay tedd nga lay ñi noo ngin jamalay doonen doomi alasan nabil karim nga bay lay tedd nga yónneen di ko nuyoo Sénégal yëpp di ko nuyoo waa Yoff di gërëm it waa Yoff ndax ñu baax lañ te mhm. yaatu mhm. dañuy yaatale ayta euh, ñu euh, dalal itam oustaz Alioune Sall mu ngi wàcc escalier yu quartier général pour ñëw fekk si ñu euh, ci plateau bi tey nag exceptionnellement invité QG internautes yee ko tànn Twitter Facebook bi ñu tàmbalee saison bi ba tey yéen a ngi ñuy wax yéen a proposé woon seen ay invité entre autres Iran Ndaw ngeen waxoon ñu invité keroog ñu invité ko grâce à vous tey tamit ki ñuy dalal yéen ko tànn ci émission bi yéen lañu koy jagleel oustaz euh, mooy ñëw yeeg si euh, fekk si ñu ci plateau bi Zeyna laata euh, ñuy expliquer lan moo tax internet yi tànn ko diggante Twitter ak Facebook oustaz ñu ngi lay nuyu di la gërëm bu baax ci sa teewaay tey ci quartier général ku ne xam ne ni weeru koor moom amuloo jot parce que heure bi ci yim lay fekk ay bëri waaye tey defal nga ñu mbégte fekk si ñu ci jotaay bii la nga xamee ni moom la Sénégal yëpp taamu guddi gu jot ñu ngi lay nuyu di la ziar Sall alhamdulilah <clears throat> alhamdulilah ñu ngi lay fay nuyoo. Mm-hmm. di la ziar di nuyu mbokk yi toog ci jotaay bi yëpp. Mm-hmm. di nuyu mbokk yi leen di seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew. jërëjëf. di am mbégte ci bokk si ci barab bi. Mm-hmm. ci liggéey bi nga xam ne moom ñooñ fiy def. yàlla bu jotaay bi neen. amin ndax temps dafa seer. ku toog ci lu mel ne ku ne war ngaa jariñu jariñe mhm, mhm. yàlla nañ jariñu jariñe amin amin amin jërëjëf moo tax suñu xarit ci sànq ba tey ñu ngi ñuy xamal ni xam-xam dina feeñ fii euh, yéen yéen a ko tànn yéen internautes yi euh, pour mu ñëw fekk suñu donc lu ëpp ci quartier général bi yéen la ñu koy jagleel euh, Zeyna naka la ñu mën a def pour bokk ci moom la dalal fi euh, mu nekk nii nag question yi commencé nañ sur les réseaux sociaux ni ngeen di def euh, pour euh, poser seen question rek mooy daal di def question bi teg si hashtag bi di QGTFM sur Twitter sinon mun ngeen ñu joindre aussi sur Facebook QGTFM sans civique itam suñu hashtag la bu leen ko di fàtte wala am nañ benn email di quartier général arobase gfm point sn ñu ngi leen di xaar. voilà je rappelle boobu bu ngeen amee ay vidéo mun ngeen ñu koy yónnee parce que yéen tamit ay reporteru quartier général. ngeen ak fu ngeen mënti nekk bu ngeen ñu ko yónnee dinañ ko partagé ak yéen euh, bu ca kanamee ñeneen ñu ñuy rejoindre ci plateau bi bu weesoo Exidex euh, DJ Bouba Bessel Bass ak ki nga xamee ni mooy euh, Ndiaye Cheikh Ndiaye itam Cheikh mu Musumbulu de man noonu laa la tuddee waaw ah, Cheikh Ndiaye tamit mu ngi fi. voilà Jojo mu Musumbulu mu ngi fi Seydou tamit euh, mu ngi fi euh, Djibril otomaak moom itam ca ginnaaw euh, mu ngi préparé wu pour rejoindre ñu ci plateau bi et puis en sport mam Fatou Ndoye indil nañu surprise boo xamante ni comme à chaque fois dañuy am possibilité waxtaan ak suñu gaynde yi tey di ngeen découvrir koo xamante ni Sénégal yëpp fonk nañ ko ci ni mu doonee jàmbaar ci wàllu football on m'a même dit que deuxième bi gën a cher ci sénégalais moom la pourquoi il nous parlera de ça tout à l'heure muy Euh, euh, Baye Omar euh, il sera avec nous Baye Omar Niass donc moom mooy nekk jàkkaarloo ak kii di Mame Fatou Ndoye jóge Everton et tout ça donc loolu ca di ngeen ci mën a sukkandiku ñu ngi leen di xaar itam ci téléphone bi 88 628 22 22 bu ngeen wootee mën a bokk waxtaan ak oustaz Alioune Sall en même temps waxtaan wi lu ne xaj na ci dañuy joxe ay paasu màkk oustaz lan moo tax Sénégal ñëpp bëgg a dem màkk koo dégg bi mu mu kontaan. waaw xanaa <clears throat> ginnaaw bala ba lu jiitu tontu li. Mhm. maa ngi ànd ak sama mbokk sëñ Mbàkke sila mhm. mu nga ne lee toog ci barab bi. Mhm. li tax ñu bëgg paasu Màkka. li ci suñu borom digge dafa bari. benn daf ko def muy farata. nga xam ne jullit bi su fekkee am na wér-gu-yaram. am kàttan am ñum àndal. bu demul màkk lu mu defati yàlla gedd na ko. ci kaw nga am kàttan bi boo amee kàttan mën ko am wér-gu-yaram am ñoo àndal am paas góor loo def ci yàlla gedd na ko lépp aji màkk nag oustaz dama ne boo amee kàttan hmm. am wér yaram hmm. am paas am ñoo àndal boo di loo def ci yàlla gedd na ko d'accord soo demee ba àgg màkka def yi ngay def yëpp ba yem looy arafa sunu borom ne la loo amoon ci bàkkaar jéggal naa la ko looloo tax nit ñi bëgg a dem Makka. macha allah kon dinañu may ay euh, billet Makka ci euh, téléphone bi ñu ngi leen di xaar 88 628 22 22 bu ca kanamee Bessél euh, da nga ñu amal ab gostu jëm ci wàllu zikr. loolu nañ ko teg ci kanamu oustaz. voilà Pape Cheikh lool sax la bëggoon wax euh, ñu ngi nuyu rek téléspectateurs yi di nuyu tamit ñu ñuy seetaan euh, di dalal rek euh, ki nga xamante ne suñu kilifa la dañuy jëlee xam-xam bu baree bare ci moom comme ni nga waxee rek Pape Cheikh xam nga jaamu yàlla nga nekk julit nga war a xam kan mooy sa borom mooy keroog bi ñu indee lax darehu tey nag ñu ñëw ci li nga xamante ne baat bi nga xamante ne war na mën a defar doomu war na mën a defar jullit waaye war mën a tamit defar xolu jullit

Euh, man waaw xam nga man suma ma juumul ñun daanu la ko tuddee daanu leer. Euh, xam nga nit benn yoon lay jeex kenn du jeex ñaari yoon. Mm-hmm. ma jaala llaahu li rajulin min qalbayni fii jawfi mm-hmm. kon mën naa nekk nit ki bu jeexee ci lii bu tuddee turu sunu borom mën naa sori ci moom. ndax laay ilaaha illallaah moo yu dugal ci diine ji weddi ko moo ñu ciy génne ku mujj sa gémmiñ nga dugg aljaana kon nag baat la ba am solo baat la bu rëy ko yonent bi daan woote te rek penc ma nag naan Quraysh wax leen ko dañ doon bañ ndax dañoo xam ne libaat bi làmb boo xasee wax laa ilaaha illallaah baat bi pouvoir yi nga amoon daf koy nangu ba mu jeex tàkk ne toppal ci kii maanaam boo doonoon tey ab gouverneur wala yooyu nga ne laay laay la laa baat bi lay wax ne ah, léegi nag tekkil say ndomba te topp ci ginnaaw kii te yëg ne olimee na la nga xam ne léegi ni mu bëgg ngay mel nun ngay mel li mu bëgg ngay def lu ngay def parce que wax nga baat bi ba pare léegi nag Quraysh dañ doon bañ wax baat bi yàlla na yàlla def muy jeexantal ci ñun ñëpp nag amin macha allah euh, laataa yu xool euh, reportage bu Bessél bi <laughs> daane kii nga euh, wàcce nga yàq nga émission bi yëpp waaye Bessél ah dañ doon werante oustaz ci tâche bi tâche bi nekk ci Jojo Cheikh Ndiaye tâcham bi moom gëm na ni mandarga julli bu bëri la man nee naa ko putantaan bu wér la moom la tubaab bi tuddee cicatrice bi ku ne waxee sa xalaat ma ne leen bu oustaz Alioune Sall yegsee dinañu àtte est mën ngaa julli wala jaamu suñu borom ba am ci màndarga. jërëjëf dafa am saar wu ñuy wax suratu al-Fatiha di ko yàllay jeexal da doon wax ki fi kim mu fi yónni woon ni mel daa di ne muhammadun rasulullah daa di fa yemale wax ja ñaari baat rek la waxal muhammadun rasulullah daa di fa yemale baat ba tàmbali nag ci ñi ànd ak moom nuñ mel mhm. di wax niñ mel di wax ñu baax si ci siimaahum fi wujuhihim min asari sujud loolu mooy lan nee li leen di xàmmee mooy boo leen xoolee seen màndarga mooy bu ñuy sujjoot seen jëyi day am taas bu ñuy am hmm. xëy na muy bii <laughs> man de góob ma ko oustaz. waaw ma ne dama ne. xëy na muy bii. parce que moom saa yu ko waxee damay tari sodotul muñ. dalay taril muñ sóoratul muñ bi xale yi wax. muñ waaw. waaw en tout cas xay na muy bii yàlla na ko doon. amiin parce que julli euh, dafa am solo lool. Mhm. waaye yàlla nee na ku xool ku baax rek xam ko ku xool ku baaxut it xam ko. Mhm. ndax nee na yow ma la xiyam du laaj est-ce que kii bandi la wala du bandi ne yàlla neen du def loolu. ah du def doon poser question yooyu. déedéet. day ñëw rek xam ña day ñëw rek xam kii kum doon xam kii kum doon. maa ko bëri yërmande oustaz. yu'rafu al-mujrimuuna bi siimaahum fa yu'xazu bin nawaasi wal aqdaam. Mhm. yàlla nee na bu xoolee bandi rek xam nañu ay bandi lañ. ok après mu ne leen wamtaazul yawma ayyuhal mujrimuun yéen bandi yéen laa wax dem leen taxaw fële. bu baax. bandi yëpp rocc ku ñoom ñëpp ndànk dem taxaw fële. d'accord kon ñaari façon la wax ñii nii leen di xamee. ñi leen xame waaye ñëpp ci seen jël lañ la xamee. macha allah yàlla boobu nag. léegi nag seex wax ñu ak sa axulaay taala bii ban la. waaw oustaz maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp. ndax damaa ñëw rek ñu jël ma jël bu njëkk. mayuñu ma sax ma nuyoo. Mhm. donc nuyu ñëpp di la ziar. di sant yàlla nag bu baax a baax a baax mu may ñu kàttan ñu toog fii tey. Mhm. lii nag man de xaw ma sax nu ma dikkee. mais je sais que ni xoosuma ko pour am ko. d'accord je sais que ni dessiné wu ma ko it pour am ko. xam naa ne daal su may julli sama xol ak sama xalaat ak sama lépp ci yàlla laa koy yóbbu. macha allah xam naa ne dinaa respecté julli yi yenn saa yi dinaa toog guddi mu mel dañ may dóor naan ma jugal julli jugal julli. Mhm. dinaa julli yenn saa yi ba muy leer naññ. ma julli fajar doog a tëdd. macha allah donc lii mën naa ne xëy na lu yàlla def ci man la rek. macha allah te it euh, bokk na ci li ma gën a jox courage. Mm-hmm. ma bañ a sàgg na julli. ndax bu ma ko defee defaat ko def ko ma gis na maa ngi am mandarga bi. Mm-hmm. ma ne ah man xëy na julli rek a ma war. Mm-hmm. te daan naa dégg sama maam daan ma wax cheikh bur ñaanlu. booy julli yàlla suñu borom. yow loo ko ñaan moom mu may la ko. macha allah donc man de jàpp naa ne lii. jaamu yàlla moom la ko après oustaz ça veut pas dire que ñaan ñaan lu baaxul dem seeti sëriñ am sa paaw pël Fuuta bu baax boo xamante ni moo lay jox yu baax yooyu yooyu yooyu yooyu am na solo oustaz. Euh, ça dépend ci ñaan lu. Ah. ñaan lu dem ci nit dégg ko say loxo ne ko ñaanal ma. Hmm. mu jabutu wax la nga dem. Hmm. ñaan lu amul problème. mais jamb yeeg yooyu nag. mën nañ ko def fu ne waaye ñëw mu mu wut suufu su marché. wala ak suufu kii cimetière. wala voilà wala suufu cimetière. Mhm. wala mu ne la demal ca fañ rob nit ka nga tagg ca la yët ma. yooyu bokk ci. mais ñun dañu gëm loolu nag oustaz ñun fii Sénégal. waaw léegi nan fexe ba mu dañ. ndax dina dina yomb dindi ci réew mi dindi looloo fi indi woon yonent bi sallallahu alayhi am na màkka treize ans yoo xam ni dindi affaire boobu dong la doon def amul beneen mais lu tax boobu ba tey parce que màkka booba kenn du julli mais dañul fii de dañu dañul de déet da nga naan am na ñum dañul mais am na ñoo xam ne bi na ne toq seen noppi ker lañ ko bàyyi loolu rek am na ko xam ne ki bu yonent bi ñëwoon fii toog fii tey ci Sénégal nekkaay leen nguyu am na ñoon duñ ko topp dëgg la waaye fi ne am na bu ne fa bu ne fa jeef ne kaay am na ñoo xam ne du jaar seen kër. loolu tax mu am fukki at ñett yoo xam ne liggéeyam yëpp mooy balin lii. waaye nogay ba léegi bàyyigul. dëgg la nogay moom da ko sonal nag oustaz waa ko nogay. nogay dafa mel ni turu ceddo la de. Ah, en tout cas nogay bàyyigul. waaw nogay lu tax nga sonal ko man man man man auditeur laa man damay consommer li ngay def. waaw Euh, defe naa sax bu ñu doon def fan sa club sax damay nekk président fan sa club bi mais yenn saa yi nga tudd Nogoy ma yooxu ne oustaz su mu séq ak Nogoy waaw Nogoy sama doomu najaay la joo xam ne papaam ak sama yaay ñoo bokk papa kon bu la neexee nga kal ko ma koy kale ci pédagogiquement d'accord li may wax nogay su ma ko doon wax jigéen ñi kenn dootuma déglu. <laughs> dëgg la nogay dee dee ah keps. <laughs> donc moom donc moom laay jël. Mhm. su ma bëggee woon ne sikk bu ko defee ku dégg ci li ci nogay bu nekkee ci yow ah. d' accord mooy li xam am na nga wala mu mooy ma nekkee ak Zeyna ak Fama Thioune euh, jërëjëf oustaz euh, defe naa laa ci commencé naa wadd ci euh, téléphone bi dama bëgg d' abord ñu tàmbali ak besel li nga ñu indi pour gagner gagner ak temps bi itam ñu xool ko zikr la.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 bàkk turu yàlla nag amul benn jamono boo xam ne nit ki war naa war naa war naa war naa xaar yaramam du ko def jëmmam du ko def ndax boo ko defut bu dee yow jàmm bi yàlla nee na garab yi ngay gis ñuy bouger ak xob yeeg loom lu mu mën a doon ma ngay ma ngay sàbbal yàlla day day bàkk yàlla da koy day zikkar zikkar boobu nag doomu aadama lañ ci gën a taamu mu di ko def parce que tur wi li yàlla wax mooy li nit gën li li ëpp solo ci li di ko wax mooy muy tudd tur yàlla wi parce que dafay dundal xol dafay dundal ruux dafay dundal la biir nga xam ne mooy jëm àjjana ëllëg te mooy dimbali nit ci addunaam ak alaxiraam moo tax zikrullah la bokkul ak nag ni ko gaa ñi defee léegi nga xam ne moom foo toog moo xam nga sell moo xam nga ñàkk a sell moo xam nga nekk ci barab boo ko war a defee moo xam ñàkk ngay teewlu yooyu yëpp daf ci am solo parce que xeetu taw tawhid la pour jege sa borom dafa am noo koy defee noo xam ne boo ko defee rek da ngay daal di dem lëkkaloo ji ak sa borom muy tudd yàlla jooju nga xam ni mooy baatu la ilaha illallah nga xam ni ci façon bi nga koy defee rek am na feneen fu lay yóbbu bi màgg ci lu nit muy góor di jigéen di génn ci làmmiñam amul baat bu ko féete kaw muy laa ilaha illallah ñu wot ci yokk itam muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sunu borom gën a bég ndax yàlla dafa wax ni moom ak ay malaaykaam dañuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ba tax na boo ko kañee moom ni amul benn buur budul yàlla mooy laa ilaha illallah waaye boo ci tegee muhammadu rasulullahi mi nga xam ni moo tax ñu bind yokk ci sallallahu alayhi wa sallam def nga loo xam ne yaa ngi àndandoog yàlla ak malaayikaam di ko def ndax yàlla bu fekkoon dañ naan am na métier métier mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sellal pratique gi nag mooy baat bu toll noonu gannaaw moo gën a màgg ci lu ab jaam di génn ci làmmiñam la ca gën a yell mooy nga sell. mu nga xeetuk euh, zikar yooyu ñun fii Sénégal ñu tuddee ko sikar euh, zikr tout dépend de noo koy prononcé defe naa lu lu yàgg la te mag ñi ñoo ñu ko jàngaloon effectivement Pape Cheikh comme euh, ni ñu ko waxee rek ci reportage bi nga xamante ne tey moom laa indi muy baatu laa ilaaha illallah Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jullit bu nekk war na di ko saxoo parce que dafay fexe ba mu soppi sa xol nga koy sikkar waaye tamit boo koy sikkar tamit na fekk nga ànd njàpp waaye li ci gën a am solo mag boo xam ne mag bu baax moomu ko mosoon may Pape muy maam Abdoul Aziz Sy Dabakh voilà macha allah euh, oustaz oustaz loo ci waaw mu ne ma Pape euh, jullit foo mënta toll même booy wax nii ngay def plateau fi nga xamante ne moom ngay yéene julli day fa sikkar laa ilaha illallah même bu jibul ci kaw mais nga def ko ci sa biir xol genn kilifa amu fi gudul genn mooy allah kenn ku fi dogal amu fi ku dul kenn muy allah kenn amu fi ku dul wërsëgal ku dul kenn muy allah kenn amu fi kuy doxal ni adduna yi tëdde nga xam ne mooy système bi ñuy dunde ku dul allah léegi nag loolu lépp kenn na koy jàngale mooy muhammadun rasulullah moo tax boo ne laa ilaha illallah da nga cay teg muhammadun rasulullah kilifa gi genn la kii mooy jàngale nuñ fay demee hmm. moo tax ngay wax laa ilaha illallah teg ca muhammadun rasulullah hmm. bu la neexee teg ca nag sallallahu alayhi wa hmm. waaye ñaari baat yooyu Pape Cheikh mooy baat yi gën a ci kaw suuf mooy baat yi gën a sell ci kaw suuf mooy baat yi gën a rëy ci kaw suuf te ku ne war naa xool it fi koy waxee waaw parce que daa am lu mu lu mu làmb. waaw parce que dama bëgg loolu itam leer ci suñu bopp ñun ñëpp. soo ko xasee wax. Mhm. baat bi dafa day changer sa système mu dund. Mhm. yow ordinaire too. laa ilaaha illallaah. Pape mhm. Cheikh. mooy ordinaire too. moo tax ba demee ka Kaolack Cheikhul Islam Hadj Ibrahima Niass radiyallaahu taala anhu daf daan wax ni. dee leen ko wax ba ku leen gis defe na da ngeen a dof. dëgg la. lu dul loolu rek ma talagu leen mhm. boo ñëwee fii ci pencum laa yéen Seydina Limaamu mhm. jigéen ñi li tax mënuñoo jëw mhm. baat bee tax baat bee tax macha allah parce que ñoom mënuñoo jëw mënuñoo sol lu gàtt déedéet mu ñu sol lu yaraax. déedéet seen yoon nekkul ci kenn. wallaay boo fekkoon ku tax sax nga ne ko pëkk mu ne laay laay la laa. wallaay nga noo noo sant mu ne laay. laay wallaay laay yëf yi jeex tak. macha allah li tax ma lay wax ni fu dee dañ ko dañ ko fa war a wax man ak Bouba mi ak Sidex ñun ay animateur lañu yenn saa yi ñu dem ci tànn béer yeeg xawaare yi yenn saa yi wa neex ba ñu ne laa ilaaha illallah déggal lii loolu moo tax ma bëgg nga wax nu oh, dafa am fu ñu ko war a wax ak ah, fu ko ah, war a wax yenn saa yi mu neex ba ñu ngéwéle grand théâtre laa taxaw de laa ilaha illallah këris xam nga genre yooyu itam jar na mu leer ci bopp yi Cheikh Ndiaye xam nga li may wax yenn saa yi nga joué théâtre sumbulu romb la ko kontaane laa ilaha ka jekk yooyu yëpp boobu moom mi ngi mel ni waaw fi ne ñu ngi ci weeru koor hmm. dañuy fas yéene bu xëdd jotee ñu xëdd incha allah ba cinq heures nangam ñu bàyyi waaw jenn waa jóge fële def grève de faim lekku lekkoo mais moom bu fay jotee bu ñëwee bu ràññee ba accident ko sa bulletin ndekku fi. kon am na xeetu koor yoo xamante ne ay grève de faim la. bien sûr. Ah. c'est vrai loolu xaw ma ko woon de. léegi kii lax wala ilaha illallah moom tam am na nu mu koy wax noo xam ne mën naa dem nu suñu borom waxoon naa ilaha illallah ñu seet dossier bi ne ko sa bulletin ndekku fi. Hmm. mooy ñu ko waxee grand théâtre ah en tout cas en tout cas ci Dakar na doot pa en tout cas ki koy wax daal moom leen ki koy wax daal bi mu koy wax ki koy wax daal bi mu koy wax war na seet bu baax ndax daa wax laa ilaha illallah wala dafa wax laa ilaha illallah kay doo yàq baat bi voilà Pape Cheikh hmm. euh, dama bëggoon laaj oustaz ginnaaw bi ñu nuyoowee ndax euh, jotaguñu nuyoo. dama dégg amati léegi. waaw dama dégg rek ci sama sama dégg bu gàtt. Mhm. ndax léeg-léeg da ngay for rek dégg. dama dégg ni baatu laa ilaha illallah muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bis bu bu ñu xëyee. adduna bi kenn génnul ci làmminu kenn keroog la adduna bi tukki. waaw weesu na loolu gis nga julli julli ci yonent bi mhm. jàngal xuraan wër kaaba ga laa ilaaha illallaah juróom lañ bés bu ñun waa suuf xëyoon ñun ñëpp bàyyi ci bii benn rek yëfi daanu Pape Cheikh su ma la joxoon tey benn pot nga bënn fii bënn fii def ci ndox di ko wëndeel xam nga pot bi dana juutu te du tuuru dëgg la vitesse muy am la moo da ngay def ni rek pot bi du tuuru waaye na benn waay ñëw rek na jenn waay ñëw rek laal sa loxo bi ndox mi yëpp tuuru. la laa ilaha illallah la tawaaf kaaba la julli ci yonent bi mel nun la jàngal alxuraan mel. Lamine Samba ji nag la am na terme yoo xam waa ji waxut laa laa lay wax. d'accord. ndax ñaare dëgg la nag ab jullit lu muy togg lu ne baat bi def cay saf. la. ab julit ndax léeg-léeg nga ne ko tëll mu ne laay laay la laa dëgg la baat bi ni mu ko waxee noonu peut-être na ko fas ba jële ko ci biir ndax fa baat bi jóge araf yi muy jóge laa ilaha illallah su ko waa ji waxee ba dënnam tàng ci bokkut ak waa jékki-jékki rek affaire kii ko rek na laay laay la laa. d'accord d'accord yi du benn. d'accord d'accord voilà euh, euh, itam am nañ ci wàll il faut que ñu ubbil leen téléphone bi ñu mën a profité waxtaan ak Oustaz Alioune Sall laataa ñuy dem ak Pape Abdoulaye Der euh, ci ndogu info parce que Oustaz Alioune Sall itam xam na ñu ni dafa dafa dafa dafa dafa kàddoom ñaare dañu koy xaar ci actualité waaye ñun itam bëgg nañ ci profité ci ñuy préparé par exemple fan yii Oustaz ñu ngi waxtaanee sëy sëyu xale yi takku suuf keroog rek am jot a expliqué euh, dañuy ànd ak euh, suñu euh, xarit ñu am lu ñu préparé lu am solo loo xamante ni ci sëy sànq bi ñuy préparer Seydou yaa ngi ma naan bu njëkkoon mag ñi ñoo daan maye. waaye léegi sëy dafa doy waar ba nga xamante ni mag ñi sax dañoo jaaxle borom xam-xam yi itam dañoo jaaxle ci façon sëy yi am léegi loo ci def. ala jarama jarama Pape Cheikh ñu ngi ziar ñëpp di ziar oustaz di rafetlu teewaayam ci biir kër gi. Mm-hmm. keroog ci bi nga invité oustaz Iran mhm. Ndaw mhm. moom moo expliqué ci plateau bi comme quoi que démb daal waajur yi ñoo doon may maye xale yi mhm. léegi nag dañu gis ni euh, nit ñaa ngi bëggante ci internet bi di bëggante ci hôtel yi ci aéroport yi et léegi nag ma waxtaan ci ay mag ñëw won ma démb nan la ñu doon préparé xale pour mu dem seeti xale bu jigéen boo xamante ni moom la war jël soxna. d'accord élément boobu laa indi tey. Mhm. Euh, dama xamul ndax dem ci dañ dañ ciy léegi mën nañ ko xool euh, euh, ni ma dañ koy xool ba pare ñu ñu. ñu dog dog ci commentaire nañu dem xool nañu dem xool élément bi ñëw waaw ayca ayca. ma neex ci euh, reportage yi nga xam ne da koy def du yem rek ci wax ak wane waaye da koy illustrer ba boo ko xoolee da ngay comprendre ci jëf ak comportement te defe naa même bu fekkee jamono dafa soppeeku am na yoo xamante ni mag ñi dañu ko fee bàyyi. très waaw xam nga élément bi Pape Cheikh jarul sax ngay dégg boo gisee ma éliminer voix yëpp c'est-à-dire jarul ngay dégg baat yi pour comprendre lan la. dëgg la euh, xale bu góor la. bu ñuy yónnee kër euh, nijaayam pour mu mhm. seet ay cousin mhm. am moo war ci jël kenn mhm. gisa bu mu ñëwee ba ci kër gi dafa ñëw ba ci nijaay ji nuyoo toog bi mu toogee nijaay ji moo woo doom yi mooy ñetti euh, jigéen yooyu ay sœur lañu très boo gisee ni ñu ñëwee sax da ngay sante ne kii mooy taaw kii moo ci topp caat bi moo ne ci ginnaaw léegi léegi moom kan la kan la ci taamu. waaw loolu laa la bëgg a expliquer. très bien gis nga instant bi mu egsee nii. Mhm. ba léegi xamagul moom kan kan la ci war a taamu. soxna man taamu ma intéressé na. waaw léegi nag foofu mooy élément bu am solo bi cest à est-ce que sama micro mu ngi génn Pape Cheikh. mu ngi génn kay euh, très bien Abdourahmane donc bu mu bu ñu ñëwee bi mu ñëwee ba toog ci ci ci bi paa bi dafa woo xale yi ñëw leen nuyu seen cousin. d'accord donc bi ñu ñëwee ba toog ñu nuyoo ak moom ba pare mu ni entrer leen ko ci saal bi. donc ñu ànd ak moom léegi jeune bi bu muy dem boo xoolee dafa bàyyi dàll yi ci wetu paa bi. Hmm. gis nga fi mu bàyyi dàll yi. Mhm. léegi bu ñu demee ba entré ko ci saal bi. paa bi day woo xale bi mu seet si. da koy woo kooku mooy ñëw jël si dàll yi. xale bu góor bi hmm. boobu lay xam ne ndeke man kii laay seet si. gis nga xale bi dem jëli dàll yi gis nga dem na jël dàll yi indi na ko teg ci wetu waa ji. donc ah. jeune bi léegi lay comprendre kii. kii la war a jël soxna donc c'est à travers daal li muy si lépp ci wax la waajur yi waxtaanee nañ ko ba pare xale bu góor bi dem na kër ga gis nañ eh, cousine am ñett lañu ñoom ñëpp ñoo bokk ndeeg baay mais mënul xam kan moo ci kan la ci war a jël soxna tant que geste bi amul gis nga. léegi léegi man bu doon man la ku jaune ki lay tànn mais ex mu séedéen bi bu doon moom la ñett ñëpp lay tànn. waaw ça ne ah, ndax moom forcément même bu ko nobul sax moom lay tànn. voilà li ñuy waxtaanee instant ni mooy. doom yi nan ni ñu dëggalee woon seen waajur yi. waaw et puis sutura bu ci ne. sutura ak respect bi xam nga euh, dañ ko wax demal sa kër nijaay nga seeti say cousine donc bi mu egsee moom dafa wax rek dafa dafa def li li ko waajur yi sant. Mm-hmm. maintenant bu demee ba gis sa à ki muy seet. Mm-hmm. bu bu bu gisee ni bëggul kooku. Mm-hmm. bu delloo ci waajur yi à travers ni muy ñëwaatee ñoom dina dinañu xam ni kii ki mu seeti woon intéressé wu ko. c'est-à-dire mm. lépp dina am ci sutura bu mënee nekk day nekk ci sutura. Mm-hmm. bu mënta ne wax bi génnagul waaye am na droit am na wax ne man mag bi laa gis. am na droit mais dépend aussi. non sans dépend aussi. est-ce que aussi te loolu bëgg naa oustaz wax ci itam. mooy côté mm. yar bi. waaw côté mm. valeur yi nga xamante ni mag ñi ñu la xam nga Pape Cheikh ku ñu neex la ñuy te yooyu yëpp dafa dafa yàq jamono léegi dafa wax keroog wax bu am solo oustaz Iran dafa ni bu ñu doon wut soxna temps yooyu pour am ci njaboot gu barkeel la. ok lii nag moo doon waral ñuy am njaboot gu barkeel déggal waajur yi ak def ko ci kaw sutura ak teraanga loolu moom moom moom lu ñu bëgg a wane ci élément bi xam nga léegi waajur yi day toog ba man ma ñëw par exemple indi xale wu jigéen bu ma neex ma ne papa wala yaay kii laa bëgg. dëgg la loolu amul woon démb. d'accord cest à loolu lu ñu bëgg génnee ci élément bi ak won nit ñi ni am na nag ñu koy dudd ba léegi. am na ñoo xamante ni ba léegi. Mhm. ci seen waxu waajur la ñu des. oustaz oustaz looy wax ci loolu. Euh, lii góor gi def ak doom yi loolu mooy alxuraan. macha allah. ndax. firawna mi musaa mi daje woon ak na keroog bi mu jógee Égypte dem Madiana bi mu agsee dégg nga la ko Shuayb bu wax dañuy waxtaan rek waxtaan wi jeex mu yëg ne kii am na physique ku wóor la mu ne ko dama laa bëgg a may ci sama ñaari doom yi kenn danga may sàmmal nag juróom-ñetti at bu ma tee fukk moom a gënal mooy lii ñu doon def nii nga xam ne alxuraan la xam nga Pape seex Jabar day jëkkër ji day liggéey ba mu yàgg dootul nekk jabar soxna lay doon mais départ bi nag jabar la. lu leen lu leen wutale. li leen wutale mooy euh, soxna du def ni jigéen ñépp soxna. boo ko bàyyi ci kër gi boo ne jàkk li sax di njëkk a dem mooy yaay. xam de mm-hmm. lu foofu lay tollee soxna. Mm-hmm. buy door a ñëw nag ma naam mu tàmbali ci jabar. di dem nag ba léegi mu ci doon soxna euh, journaliste nag léegi ñëpp ci ñoom sama gars ñoom dañu jàpp ne jigéen mooy soxna. mooy soxna alors que du soxna léegi nii jamono yàqu ndax du sëy yi léegi moo doy waar ba léegi jamono yàqu bëri xeetu ñaawteef. waaw xale yi lu ñu neex def réew mi it doy waar lool. lool lool lool lool lool sax soo dellusee ci Seydou. waaw. mooy paa bi lañ bàyyee lépp. gisoo fi seen yaay. Mhm. lu tax. parce que yaay yi xamuñu woon ponki sëy li ñuy jaar ci sëy li sëy bëgg fasek yooyu yaay xamuñu ko woon comme xamuñu ko woon ñoom tam dañaan jàpp seen njàmbur lu dëgg moo tax gisoo ci yaay ci ci ci ci reportage bi mm-hmm. léegi nag affaire bi dafa walbatiku mm-hmm. li ëpp ci paa yi léegi danoo toog ci ginnaaw yaayee ci dugg mm-hmm. te bu njëkk yaay loon seen problème mooy jàmm bisaab defar jinjeer yi loolu lañ féete woon mais léegi dañoo bàyyi affaire yooyu ñëw bokk ci yëf yi ñooy fas ñooy tànn ñooy def nangam affaire bi commencé yàqu. ñooy diin ñooy teg ay diin. ala kulli xaal <laughs> oustaz euh, ñu ngi lay nuyu baax di la di la sargal. jërëjëf oustaz Mbacké Sylla oustaz nu nuy soxna ak nu nuy tànnee borom kër. jërëjëf kuy tànni soxna da ngay tàggu ku ñu wax Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. ko man ko damaa bëgg a tànni soxna. xam nga ni ñoom léegi dañuy dem ci meer yi mu defal leen petaaw. waaw xuju xuju xuju du baax. wala am naa seetkat wala xuju xuju xuju dana baax bu baaxut. ki yàlla yu noonu def na la demal nga tànni ku rafet. Mhm. ku amub juddu ku am diine ku amus tuut mu ne demal nga tànn kooku bu fekkee soxna ngay tànni. ku rafet. ku rafet. waaw daf ci am solo de. waaw dafa def waxuma nag rafetu rafetu. Euh, xool xaaral waxuma rafet boo xam ne bii biti cosmétique yi ñoo ko fabriqué <laughs> waxu wax ngeen baal ma nag waaye waxuma boobu. ba Cheikh bii mosoo ko dégg de. nee du rafet boo xam ne nee na du rafet boo xam ne te ne bitigu cosmétique yee leen defar. ah rafetu top ah. rafet boo lay doon boo xam ne bii. mooy bu naturel lay doon. Uh-huh. boo ko fekkee ci fi muy bojj mbaa nga fekk ci kër gi mbaa ci waañ wi moo ma may ànd d'accord lu dëgg booboy taal waaye boo xam ne daf cay nekk di ca nekk ba sonn door rafet voilà dëgg boobu lañ boobu la ñuy wax macha te bu rafetee du yàgg rafet daa bokk ci li nga xam ne sunu boroom du ko may kenn mm-hmm. voilà am yoo xam ne yàlla du ko may daf koy able mm-hmm, mm-hmm, ku nelaw ñaaw dëgg la ku jaaxle ñaaw dëgg la kuy jooy ñaaw. dëgg la ku sonn ñaaw. dëgg la léegi euh, dañuy euh, jàll ci oustaz wax ma juste jël quelques téléspectateurs laata ñu jàll ci tweet yi euh, ci tweet yeeg message su Facebook yi parce que bëri na laataa ñuy dem itam ak Abdoulaye Der lépp la ñu bëgg a matale ma tënk benn rek ci kuy tànn jëkkër. Mhm. moom ñaar lañ cey wut. ci kiy tànn jëkkër. kuy tànn jëkkër. waaw jëkkër moom diin ak jom rek. Ah. jëkkër moom na am diin naam jom. riis sant jàll. parce que taaru góor day sonal góor. rafetaayu góor. la koy doyee. non non. Ah. góor moom Pape Cheikh. na am diine. kese am jom. jom ji nag mooy mooy def poche. mooy indi poche allah voilà. parce que góor ñu jom du ñu xëy bien clair c' <laughs> waaw Ndiaye waaw. Uh-huh. lu ma ci amoon lu ma ciy dolli mooy oustaz maa ngi lay nuyu di la ziar. merci di la wax ak la téye seen nuyoo yi oustaz nuyu nañu ko ba pare. ah waaw mais kenn ku ci nekk ak nuyoom ak lu mu fi mu. après bu jeexee ngeen def ma ni may mun a. déet mënta ñàkk xam nga yow <laughs> yow bokk ak oustaz. dafa am euh, eh. benn mag moo xamante ni mës nañu ko laaj kaa yu mel nii. Mm-hmm. muy sunu yaay xaar bay ma jàgg ñu ne ko Ajaaxaar. Euh, di ko ñaanal yal na ko yàlla may gudd fan. ak wér amiin amiin mu yàgg fi. waaw ndax ndaanaan bu mag la ñu ne ko Ajaaxaar yéen seen jamono naka la meloon mu ne ko alaaji sunuy jamono baale amoon na waaye ku ma saana baale ba pare dañ na jël gunge la ba sa biir kër nga dugg tëdd mu ne ko waaye jamono yi léegi yii gone yi ci biir néeg la nuy baale mu ne ko nag te naag alaaji moo naa mu ne ko laa lamatu jugg fi gone yu waaw parce que léegi jamono dafa soppeeku. jamono dafa soppeeku làmbatu jógu fi jamono jamono dafa soppeeku. jamono noo ñoom ñoom loolu mooy seen combat. xam nga ni lii diine la. <laughs> lu am solo la. ayca ñu permettre téléspectateurs yi du dugg waxtaan tuuti ak Oustaz Alioune Sall laataa ñuy dem ak moom ci ndogu info ak laaj yi nga xamee ni Ablaye Der préparé na ko Mamadou Ndiaye itam dinañu def ak moom tour du monde alo allo. kooku. man la Fatou Diallo. yow la kan. Fatima Gueye. Fatima Gueye yaa ngi woote fan. maa ngi d' accord ñu ngi lay déglu. biir laa bëggoon ci yàlla baax na sa yaay nga ko bëgga waaw sa yaay nu mu tudd. jeex na yàlla baax na am na ñu numéro téléphone bi bonne chance mën na bokk euh, ci ñi tànn pour ñu dem euh, aji màkk ñu jël ci ki ci topp euh, li ci ëpp solo it bokk na ci li ngeen bëgg a xam ci diine ji oustaz Alioune sàll wax leen ko ndax ñaare du yomb ci ñun pour ñu jot ko tout le temps tout le temps tout le temps tout le donte ñu ngi koy déglu ci ay rajo donc li occasion la pour ngeen profité laaj ko ci temps bu gàtt bi rek laataa ñuy dem ak moom ci pàcc bi nga xamee ni jëm na ci wàllu actualité allo. alo alo allo. oui kooku. oui bonsoir Pape Cheikh. bonsoir soxna si ñu ngi lay nuyu. waw maa ngi leen di ziar bu baax a baax. ñu ngi delloo ziar di la sargal. voilà man la madame Ndiaye. madame Ndiaye je ne sais pas si tu on s'était rencontré il y a pas longtemps au cas je vais taire le nom mais dans un supermarché. d'accord dëgg la dëgg la dëgg la gëjuma foofu waaw jëloon naa sax benn photo pour sama doom. wax nga dëgg madame wax nga dëgg maa ngi koy fàttaliku du ma gëj fu baax foofu voilà voilà <laughs> maa ngi rafetlu bu baax li nga di def. jërëjëf. voilà kontaan trop si oustaz Alioune Sall teewoon bi foofu. macha allah. yal na yàlla guddal ay fanam. amiin amiin ah bàyyi ko sunu kanam lu yàgg yàgg. amiin muy def rafet na kontaan nañ ci te ñu ngi ci jàng lu bëri. Mm-hmm. waaw léegi man laaj bi ma amoon. Mm-hmm. c'était par rapport bon ñu ngi ciy wax bi ci xaat mais bugg naa quand ci ay firnde lu leer daal. Mm-hmm. voilà c'est par rapport à exemple euh, euh, affaire héritage. affaire bien que c'est pas affaire héritage. héritage d'accord voilà. sa prononciation moo fort madame Ndiaye. voilà voilà xam naa tubaab bi nag moom. dafa fort yow tamit yaa ngi beneen niveau doctorat. <laughs> voilà donc euh, dañuy faral di wax ñu ne doom bu judduwul su sëy bu ñuy euh, def héritage du doon. c'est que le le thème actuellement mooy affaire ramadan. mais je oui. pense que lii yëpp ci jàngat la bopp. lépp lépp lépp a ko moom donc on a besoin de savoir quoi. parce que di nga gis koo xam na ni peut-être jurul doom ci sëy mais yar na ko mu ànd ak yeneen doomam yi ba mu xëy moom ci boppam génn àddina. Mhm. donc lan la l'islam wax lu leer ci loolu parce que je trouve que tamit rafetul ay nit nekk ànd nekk ak mag ba xëy moom mu génn àddina ñeneen ñi di doon te moom du am dara. dafa rafetul daal ci dégg-dégg. Mhm. léegi lan la ci lislaam wax pour ma xam une bonne fois pour toutes. parce que dama ci am ay doute yu bëri daal. macha allah. waaw hmm. ah. jërëjëf madame Ndiaye ñu ngi lay gërëm bu baax oustaz ñu bàyyi la nga tontu wala ñu jël keneen dajale tontu dajale laaj yi. Euh, yoruma fu may noté <laughs> te fi mu ne xam naa ne da nga commencé màgget nag oustaz. non non màggetaguma. si na taay na commencé nga màgget parce que bi ñu gëj a gisante. weexul woon tàll. waaw tey da nga ma jox Père Noël. déedéet weexaay bi. waaw. Euh, Pape Cheikh. Mhm. ku bëri xalaat. ñàkk kawar mbaa sa sa kawar weex. da bari bëri xalaat. bukk di xalaat. bukk do xalaat dépense la. non non dépense jarul xëy. ndax sunu borom nee na li ngeen di lekk maa ko yor. dëgg la macha allah bu ngeen tëddoon ci daal bi ma ma mboow mat ko jët leen kon du problème boobu. dëgg du dëgg. dëgg kon bejjaaw du xalaat du du xalaati dépense. d'accord yonent ba daa jékki mu ne wa axawaatuha d'accord aw saar wi moo ko tax a bejjaaw parce que li ko saar wi teg te mbëgg ko tegoo d'accord kon loolu mën naa jur bejjaaw d'accord mais man ci at yu yàggut yi rek laa fi ñëw non yow ñu ngi gëj a gisante temps yi ma nekkee seen di def appartement de service. waaw ah, ci la ah, bi ma la tàggoo baali te nga ma bul dem. en tout cas Pape Cheikh Bédiaw màggatuguma ma dégg nga. <laughs> macha allah macha kon ñu bàyyi la nga nga. léegi tontu lii waaw xam nga. héritage dafa bu bu sentiment duggee rek du baax d'accord yàlla na yonent bi doyoo ma ci parce que nit nga mën nga am ay sentiment bàyyi ma ak affaire yi bi mu ko bàyyee affaire nag mooy wax ñoom moom suñu borom mooy wax ñii am ak ku ne lu muy am loolu benn boroom xam-xam tëralu ko yàlla moo naan kii lii lay am bi mu ñëwee ci doom ji muy wax nag daf ne man yàlla maa ko reconnaître d'accord te kenn mënu ci dara. c'est-à-dire comme man maay gouverneur. yàlla mu ne comme maay gouverneur maay signé xaalis mu nekk xaalis fu billet bii du ma ko foo faux billet la. ah tey boo jëloon kër yi bind ci mille francs dem ci bind na ko jaay ma or jaay ma nangam kay du weex wii bind ci mille rek benn 1 ak 3 euros dem ci bitig ba daañu la jaay. kenn du ma jaay. lu tax yàlla daf ne al yuntu ba ne al waladu doom ji nga xam ne bu ñuy doon day doon lil firaasi cib sëy lay juddoo daan ne wasalaam donc leer na defe naa ñu jël keneen ci oustaz wax ma leer na nañ lii lañu la ñu tuddee euh, Ablaye Der la tuddee pédagogie c'est ce qu'on appelle pédagogie boo dee jàngalee donc am na keneen euh, ku nekk ci téléphone bi ñu euh, uyu ko allo dem na ñu ngi xëccoo 88 628 22 22 bu ngeen wootee jot directement oustaz Alioune Sall alo salaamaaleykum. waaleykum salaam. Pape ça c'est mon ami. Euh, man la Marlo maa ngi lay woowee dugg. wallaay xam naa fi ngay woote ak di nga tudd yow chaque jour nga woote jarul sax ngay léegi boo wootee rek waxal allo wax li ngay wax parce que miin nañu la. <laughs> <laughs> léegi internet yi ñu ne. waaw nan ngay def ba ñuy jot guddi gu jot waaw pour dugg chaque jour. waaw parce que dugg jafe na jafe goo xam ne nit ñi dañuy woote ay weer duñu mën a dugg yow chaque jour nga dugg. waaw. Euh, man euh, xam nga man doomu daara la mhm. sama papa moo kooku toog fi ñoo bokk tur muy oustaz Alioune Talla te da doon déglu sama papa te eh, sëriñu daara la woon te saa su oustaz daan waaraate da daan eh, teg rajo bi woo kër gi ñu ñëw déglu te bu nekkoon koo xam ne dafa bëggoon oustaz lool te moom oustaz ñoo bokk turandoo mooy Seydina eh, eh, Aliou te sëriñu daara la te fii soo bale ci ndukumaan bëri na la jàng ci gobaak gii naa fan laa war a jaar ba mën a dugg ci li liñ bi yàlla ñu lay sutural pap pap Cheikh eh, man nag nekk koo xam ne pap Cheikh waaw dama bëgg Youssou Ndour lool lool lool lool naa ba bëgg Youssou Ndour boobu sama rakk bëgg nga kuriis wallaahi léegi may ma ma laaj Oustaz. ayca. Oustaz. waaw. laaj bi dama ko laajoon ci TFM dama bëgg nag euh, dama la ko bëgg a laajaat. waaw. muy ñun ñun dëkkee fii ci région Kaffrine dañuy doglu ay tool mooy nga yëkkati sa xaalis joxe ko ci tool euh, ci premier terre bi suñ jaayee gerte la ñuy joxe xaalis ñi di dogal ñu tool su yàlla bi tawee lañ koy soog a may léegi nag foofu laay laaj dafa am ñu fi utee dañ am nañu koo xam ne def ci wax ne. képp koo xam ne dafa yëkkatee xaalis jox la euh, euh, ban war bi jeex yàlla di soog a taw nga mbay tool ba dafa wax ne loolu daganut te ma laaj ci woote fii ci quartier général am oustaz bu ma ko laaj mu ne loolu dagan na foofu nag moo nekk sama ji di jafe-jafe te tamit dafa am benn sëriñ boo xam ne daan jógee ci benn ci tarixa yi nii daan ñëw fii ci sama papa te daan aaye nit ñi dina jox xaalis nga leen di jox tool ba na ñu soog a mbay du tool la laat ma ci suñ jeexal bi rek nga yëkkati xaalis jox borom bi mu jox la tool bi a ji tool bi dagan na wala na la jox ma gerte ma mbay ko ba nawet bi wàcc ñu mi ak gerte gi oustaz sama papa ne dund na juróom-ñeent ki at ak juróom benn te ku la lool lool lool yàlla xam na ne bëgg gëm la bëggoon doomu aadama mënu koo wax yàlla xam na ko dinaa man doomu daara laa si tëju daara laa nekk ba xëy takk di da dawat li wax nii dëgg la ci man yàlla xam na ko yàlla na bëgg maa moom ak gars jërëjëf jërëjëf macha euh, mm-hmm, daf ne laajoon naa ko diw mm-hmm. laajaat ko diw bëgg la koo laaj mm-hmm. gis nga ku bëy sëriñ jaaxle dëgg la neel benn ku bëri conseiller dof. dëgg la neel ñaar. ñaar ku bëri médecin dee. dëgg la mécanicien itam boo ci bari la sa oto yàqu. li ma la wax rek dafa am yoo xam ne da nga ci am benn rek suñu yoon bi daa wax ne ku gor suuf yaa ko moom. dëgg la ku gor suuf fekk àll bi mu ne mu ne yàmbalang till yëg bëy till yëg kañ yi dëkk fa. soo ñëwee gor ko yow gajj ko ba mu set yow yaa ko moom léegi nag bi nga ko moomee ndax dangay ngay luye waaju suuf si ndax da ko koy abal ndax da ko koy jaay loolu yow lañ koy bàyyee waaye daal yaa ko moom kon su su duggee foofu rek dina fi am tomb bu ko amal njariñ lool jërëjëf ci laaj bu am solo bi. Euh, euh, Twitter yi euh, tweet yi plutôt ak Facebook allo. allo allo allo. allo. kooku. Pape Cheikh. waaw. Nafisatou Ka. Kappulo fan ngay woote maa ngi wootee région Kaolack sopp la lool. jërëjëf jërëjëf Ka alhamdulilah ndegam jot naa la tey. jërëjëf jërëjëf Ka. sama sëriñ boobu nag sama nijaay la sama yaay Sall la sant. macha allah ñu bàyyi la ak moom. wallaay tonton Aliou. bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa yal na la fi yàlla yàggal. amiin man la Nafissatou Ka. Ka. <laughs> yàlla yàggal sa taxawaay. amiin amiin. lépp loo séntu ci lu baax yal na ma ko suñu borom defal. amiin amiin. waaye Pape Cheikh yow it kenn sama doom baay bu baax. jërëjëf Ka. ku la bañ yàlla na dee waay. ay waay wallaay ku la bañ yàlla na dee. yaa ngi may rusloo ci kanamu ci ko fi mu yokk ma jom tuuti. taalibe bàyyi laa la ci man. sa kanam ku ko xool koo xam ne nit ku na. dëgg la. dama laa topp wallaay dama laa bëgg dama lay ñaanal sax ma la gisuma la. jërëjëf. barke Maulana Cheikh Ibrahima. macha allah. maa ngi leen ñaanal seen taxawaay bi yàgg. amiin a koy seetaan. wallaay jërëjëf ak sama soppe sama jaam bi jeena euh, ba Seydou Ba maa koy déggee bu baax. jërëjëf mu ngi lay dégg. wallaay yal na yàlla defal. amin amin amin ka amin ka ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm bu baax wooy leen di wootee ñu ngi leen di xaar 88 628 22 22 Abdoulaye Der ñu ngi lay nuyu gërëm la ci sa teewaay ci euh, quartier général moom Mamadou Ndiaye ngi sa ginnaaw euh, defe naa nag mën nañoo jàll tuuti ci actualité ak oustaz. jërëjëf Pape Cheikh euh, ñi ngi nuyu di këram euh, ñi fi toog ñëpp ñi seetaan aussi oustaz ci wuy si bu mu ñu wuy si kontaan nañ ci lool te xam nañ aussi yam ci diina l'islam euh, waaye laaj bi mu koy njëkk laaj yaa ngi ci parti politique yaa ngi conseil économique et social. waaye ndax environnemental environnemental waaw. ndax yaa ngi ci parti politique tamit ba léegi. déedéet nekkatoo MRDS. nekkuma ci parti. bokkuma woon ci MRDS. àndoon nga ak ñoom ci logistique. àndoon na ak ñoom nag pour jàppale leen pour yaakaar ne mën naa leen indil dara pour ñu dem assemblée. Mm-hmm. mais ñaara mujj falu ci liste bi te bokk bokk. waaw bokkuma ci parce que li tax bokkuma ci euh, liste bi daa amoon parité. Mm-hmm. te itam normalement mënumaa ñëw nekk gan nekk tête de mm-hmm. kon borom parti mooy nekk tête de te ñu ne parti nee na foog ñu teg jigéen. jigéen waaw. deuxième parti bi munuma koo jiitu. kon fokk mu ñëw nekk troisième. bu troisième bi weesoo fokk pa parité mu ne. ñi dugal jigéen. Mm-hmm. kon fokk kàddu gu ma door a dugg. dëgg la man nag fëgguma woon taabal ji ne leen fii lay dugg. damaa jàppoon ne rek euh, comme seet si nañ ma wax ma ne ndax mën nga ñoo indil dara ma ne xëy na ma dugg ca yëf ya mm-hmm. ànd ceeg ñoom campagne ba Sénégal daj. ñu am deux députés ma dem toog. d'accord loolu mu ci dugaloon. ak it bi may campagne léeg-léeg nit ne ma am lii def ci campagne bi ma jox ko ne ko lii diwa ma ko dimbalee ñu def ko ci campagne bi. Mhm. donc looloo tax bi ñu noppee man dugg ma waaye ba fii ma toog bokkuma ci benn parti. Mhm. kon mu ñu wax ni oustaz politicien nga. Euh, politicien nag moom moom laa. Mhm. moom laa de. ndax dama danaa danaa campagne ci suuf. di fal ci suuf di fal ci suuf. ah bon sama carte électeur ngi nii buñ ne woon tey la ñuy watee ma ma dugal ko. Eh fal ak folli boobu dina xaw a jaaxalaat ne jàpp nañ ni sëriñ si en général ak ustaas yi ñuy laal ci diine contre nguur moom du ngeen ko mës a def. ah kay danañ koy def bët di ci naaj wa ndax sunu borom dafa ñoo wax ne wala taktumu shahada bu ñaar di xëccoo bu leen nëbbu seede. Mm-hmm. luy nëbbu seede. mooy yàgg Pape Cheikh ngeen di xëccoo benn affaire. man ne ah yéen a yem dem toog fële suñu borom ne ma yaa ngi tooñ. mën naa am kenn ki tane kenn ki. Pape Cheikh olof dañuy wax ne kii dafa bon. kii moom daa bon a bon. kii nag dafa bon a a bon ku ci gën. ka bon rek yam ci ki bon rek yam ci ki bon yam ci léegi kon loo mënta ñàkk. mooy mooy waral fokk nu bu bu nguur defee lu jar contre ko dañ koy contre ba tëdd ci naaj. macha allah waaye nag xam nga réew mi ni mu tëddee noonu bu ñuy waxee mbirum diine tey suñu déggoon ci parti ñàkk nañ ñee te te parti ba nit ñee ñu koy gënal cest à message bi wartu doon message buy jëm ci benn parti parti ñoo war a xaj ci ñun waaye ñun waruñu xaj ci parti d'accord looloo tax amaguñu wenn kart bu parti d'accord waaye nag noo ngi fal nag di folli mais euh, boo nekkee conseil économique et social tamit ndax du am lu mu wàññi ci yow ci cadre liggéey bi nga xam ni moom laaj nga laaj ba am solo keroog bi may dem conseil économique <laughs> bi mu ñëwee dama ne leen ci suñu réunion bu njëkk en plénière na ngeen nu may rek nu nekk carotte carotte carotte bu ko soxna si toog bu koy jënd ca marché ba nu muy mel xonq bu ñu ko dugalee cin li nu muy mel day xonq bu génnee ba teg ci añ bi muy mel. ma leen bàyyi la ma rek ma nekk nitu diine dugg ci biir. pan avant pendant ay après lépp naa nekk sëriñu daara rek. macha allah loolu laa leen doxoon keroog loolu itam laa bëgg doxal. gis nañ ni ma ko doon waxee sa taxawaay ci diine gi ak euh, actualité boo xam ni dafa lëmbee àddina bi terrorisme. Mhm. terrorisme tamit mu am fu ñu ko dëkkal. Mhm. ñun ci fu ñu bokk ci wàllu diine sa gis-gis ci terrorisme boobu. Mhm. jërëjëf euh, terrorisme mooy nit ñu bokk ki nit teraanga ñañ bokkal teraanga ja ne teraanga ji ku buur bi jurut doo ci bokk mm-hmm. ñooña ne leen comme duñ am ci teraanga ji dañuy bokk ñàkk teraanga ji loolaa jur terrorisme léegi nag bi gaa yi bëggee nag ne lislaam yow tam euh, soxla nañ la bu dara ne tëll ñu ne diwoo ko def tey jii rek dégg nga benn attentat bu mag bu xew boo xam ne ka ko def xanjuta nekkub jullit waaye nag waa ji boo ko bëggee tubaab yu ñooy wax ne boo bëggee rey sab xaj da naan ko da raam dëgg la boo ko dóoree bal kenn dox dara mm-hmm. loolu rek nag mooy terrorisme muy gaa yu ñu tooñ te amuñ pédagogie fayu ñu fayoo fayun baaxut ñu jiiñ leen lu baaxut ñu jël loola nag daal di koy taf lislaam ba amal gaam am ci. ba amal gaam am ci. léegi nag réew yu mag yi bu leen neexoon suba la terroriste di jeex. Hmm. parce que adduna si dañu ne démocratie fii dox luy démocratie mooy boo amee sa xam-xam ñëwal ñu jox la sa parti nga doxal. lu dëgg loolu bu doon dox rek léegi tey ñi yor ngànnaay luñ koy doyti. kon teraanga yi ñëpp jot ci. waaye tey fii nu toog nii bu fii teraanga ñëwoon. saa bu ngi ñëw rek jaar nii jaar nii léegi te mu jaar nii gaa yi jëm koo nañ ci am balaa ñëw fii. dëgg na loolu lay terroriste. alors euh, mun naa ni terrorisme selon gis-gisu nit ñi bu dee damay jël misaal ci Israël ak Palestine côté bi nga féetee bu dee palestiniens yi la ñu la ñu la àndal wala gis-gisa seen gis-gis lañu àndal dañ naan combattant yi bu dee ñoom ñoo def mais de bu dee israéliens yi dañu naan euh, ñoom seen côté. ñu ne terroriste lañ leen woowee donc gis-gis yi day waroo mais est-ce que tamit du dañoo jóge ci euh, terrorisme boobu euh, jàll ci leneen li may euh, wax jihad. jihad boobu ñuy woote tamit ci diine est-ce que du dañu juum dëppootul ak jamono. Mm-hmm. buñ naan jihad bu njëkk ba ak léegi est-ce que moo moo moo moo bokk. wala war nañu bokk. jërëjëf bu fekkoon ku ëpp doole nit. noggatu ko rek terroriste ga ni nga ko waxee léegi noonu lay amee. <laughs> benn américain dafa ñëwoon Afrique mu jàpp benn waay di ko rendi waa ji màtt ko mu jóg taxaw fële ne ko ndeke yéen africain ku leen rendi danga koy màtt. te moom ma ngay rendi. te moom ma ngay rendi. manqué. <laughs> mu ne ko mu ne yéen lii ma tax civilisé wu leen. <laughs> te ma ngay rendi. te ma ngay rendi loolu da caacaayuk Cheikh Ndiaye la xanaa rendi nit ba noppi naan ma ngi may ma ma yéen a ngi mat <laughs> léegi jihaad jihaad day baat bu alxuraan dëggal saxal ko yonent bi ne ku ko defut waajaloo ko boo deexee déewu ci lislaam kon baat bi rëy na mu des nag ku koy def ku koy def loo ak nu mu koy koy defee waaw su fekkee waa ji bu meree rek ne damay jihaad déedéet waajur su meree daa bëgg wax daa war wax ne damay fayu li ma def waaye na teg fële jihaad waaye nag damaa mer kon damay jihaad ma jël butéel bi rek daal di koy dóor seex na ko damay jihaad maa ngi lay tooñ. dëgg la dëgg. dëgg la su ko defee mën nga caa def yoo xam du noonu waaye jihaad ci boppam moom. Mhm. mii ngi fi du xewwi yonent bi nee na li fekk jant bi génnewul fii sow. Mhm, mhm, waaye nag nuñ koy defee. ku koy def. alayhi salaam def na ko xeex na 27 27 guerre. mais bëgg jàmm Pape Cheikh moo ko yóbbu woon Taif bëgg jàmm. neel benn. bëgg jàmm moo taxoon mu ne saaba yi jóg leen màkk ngeen dem làqu ji ca Afrique ca Najaasi ndax bëgg jàmm. ñaar de xanaa. ñetteel bi bëgg jàmm moo taxoon keroog bi yàlla ne ko ñi la tooñ damaa bëgg a tukkal adduna seen kaw dafa yëkkati loo xam ne yàlla ëpp naa def allahumma ixfir li xaw mi fay num laa yaalamun mhm. baal leen dañoo xamagut. muy ñeent. bi ko juróomeel bëgg jàmm tax mu ne màkk kon nag naa leen bàyyi seen dëkk bi. dem Madina dëkk fa. ñeenti téeméeri kilomètre. te ci gëléem la war ñu topp ko bëgg ko rey. kooku kooku su xeexee. vraiment kenn du ko yedd et ñoom sax seen xare borom xam-xam man dañ ma wax ni daaw ñu rey xale daaw ñu rey jur gi daaw ñu sax lakk garab. yàllaa ko ko wax mag ñi sax bu leen rombaan daaw ñu leen boole ci seen jihaad yooyu. yàlla def na ko mais léegi nag ñi ñuy tuddee ay terroriste ak yooyu dañuy ne. ko. ñoom placé bomb bu rayaale seen bopp ña fa ne ñëpp dee. boo séenee labbe ca ca jàkkaam. groupe la ñuy kil. kil la boo séenee jigéen sa yoon nekku ci boo séenee xale sa yoon nekku ci yëpp la ko yàlla wax. te ñim doon xeexal ñoom dañu maasale loolu. d'accord. kon nag ki jóg ne damay jihaad war na xam li muy def lan la. d'accord lu ko ko def loo ak nu mu koy defee. Mhm. tey jihaad kenn du jóg rek ne dama koy def en tant que yow. ilimaani nit ñëpp moo war moo war a jóg ne kaay leen ñu ñëw mu ne jihaad kat jot na ñu ne ko lu xew. mu ne parce que diw mii daa def nangam nangam ci penc bi. Mhm. ñu jóg jihaad ak ñooñu. Mhm. loolu mooy jihaad. d'accord kere bi mu ñëwee ma di ma dina toog na fa mu at ñaaru la at ma rek gaa ñu fekk fa. jóge Màkka de. fekk si ko. xeex ak moom keroog nag. yàlla nag na ko fa yàlla nag na ko fayul nag. usina lil lazina zulima lil lil ah, wala boog usina lil lazina qutilu bi annahum zulima wala la aaya ja waxe ngeen baal ma ci eh, mokkal gi waaye daal yàlla def na ko <laughs> ginnaaw dañ lay xeex nag waaye fayul nag macha allah fayul <laughs> keroog ba mu fayoo pourtant trois cent treize personnes rek la yor ko doon xeex a ngeeg mille mhm. gars yi duma leen rey ci soixante-dix jàpp soixante-dix suba la mooy anniversaire bi mooy Badar bu suba incha allah ah suba la anniversaire Badar suba la anniversaire mais amoon na Badar 23 juin koy fàttaliku bien sûr kon suba Badar suba encore ba li la ak ak suñu Badar bi ñu jàpp woon Sud FM yóbbu ñu yow balaa balaa ñuy dem noppalu rek euh, bu mujj bi ndax ñi ngi laaj pause waaw euh, ce que du aussi euh, booy seet buñ jógee ci jihad dem ci fitna ndax euh, du neex a weddi mhm. am na benn boroom xam-xam euh, France Gilles Kepel euh, tudd mhm. dafa njëkk bind téere boo xam ne jihaad la ko tuddee mhm. dellu si ne fitna est-ce que ñun suñu biir jullit tamit war ñu yedd suñu bopp ndax problème yu bëri booy seet ak rayante yu bari diggante sunnit lañ lay wax ak chiite boo demee Syrie looloo fa am rawatina ca Irak wax nga lu wér wax ñun tamit Euh, sunu borom nee na fitna moom weesu na rey wal fitnatu ashaddu min al xatl yàlla nee na fitna moom weesu na rey nun sunu fitna mooy kenn ku nekk ñun da teg sa loxo sa dënn ne man mii rekk ku dul man du noonu moo jur loolu ngay wax waaye fi ne euh, der yi Iran xam ci wàllu politique gu àdduna. ah Iran bu dëkk Iran. lim xam ci politique àdduna. ak li Saoudia xam ci wàllu pas-pas. buñ ko booleel moom àdduna si. kon nag seetaan day fexe ba ñoom ñaar. Mm. duñ ko bokk mukk du mu booloo. Mm-hmm. loolu rek la voilà. waaw diviser pour mieux régner. très noonu la ko tubaab tuddee. ki dafa am ñeex ma am ñànk tan. bu nu duñ añ. bilaay day doon cuub. gaa yi fexe nag naan ko pap Cheikh sa ñànk sa ñeex mi bu ko sàllu jage man tam ñaan ma sa sa ñànk tangi nangam duñ ko boole mukk nooy def naan sam ñeex ma maq sama ñànk ta wallaay wallaay wallaay su boobaa ku ne am jël <laughs> allez euh, li mooy jotaay bi tey QG bu spécial ak oustaz Alioune Sall euh, ñun ñëpp a ngi fi pour gunge leen avenir am na gëstu bu Exidex def euh, dinañ leen ko woon bu ca kanamee di ji buubaa itam lii mu wàcc dinañu ko wone Ndiaye tamit mu ngi ñuy wax ni am na fu mu ñu bëgg a yóbbu bu ca kanamee mais surprise la ko bëgg a defal téléspectateurs yi comment bien manger dañ ci àndandoog Alfi oustaz laata ngay tontu ci li Mamadou Ndiaye indi dama ci bëgg a junj tuuti parce que dégg naa waa banque mondiale dañu proposé pour ñu wàññi jur gi fii Sénégal doo ci tontoogum léegi nii est-ce que war nañ koo wàññi wala waruñu koo wàññi euh, Moudou Ndiaye ban reportage nga ci def euh, pourquoi waa banque mondiale wax ni Sénégal nañu wàññi njur gi alors que ñun dañu jàngal ñi dañoo war a yokk euh, xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo war a yokk wala dañoo war a wàññi on en parle tout à l'heure mais en attendant xam leen ni Orange Money mi ñu àndal actuellement mën ngeen a profité ba am lu toll ci diggante vingt cinq jàpp million à condition ngeen yónnee wala ngeen jot lu ngeen yónnee wala ngeen jot ko xam leen ni ay point la point yooyu nag ñu ngi ko tuddee mbaxus alors mbaxus yooyu nag euh, dafay dem ba le 7 avril xëy na expliqué naa ci tuuti mais dama bëgg ngeen xool euh, ci biir publicité yi ñu leen di waaje woon Orange Money ak njëriñam ak mbaxus yi nga xamante ne jagleel na ko ay client am